asalaamaaleykum maa ngi nuyu euh, ñi toog ci assemblée bi yëpp di nuyu askanu Sénégal ci suma mbokk yi wax léegi jaar rek foofu lay tàmbalee mooy di yëkkati ay kàddu njaal ndax mënta ñàkk ndax ñun ñëpp ñoo ñàkk suñu ay njaboot kàddu njaal ci ñi nga xam ne ñoom ñoo fi faatu ci jamono yi ñu weesu ndax euh, manifestation yi amoon ak répression violente bi nga xam ni jot na cee am di rafetlu itam di féliciter maître Ngagne Demba Cheikh Tidiane Dièye ak Déthié ñu ma jiitu di yëkkati ay kàddu leeral tuuti rek ci kàddu yi nga xam ni démb ministre de l'intérieur yëkkati na ko ndaxte gis nañu conférence de presse bi nga xam ni am na moom ak naataangoom bi ñu naan Euh, ministre de forces armées ak ministre de la justice bu ma yeboo sax à la suite de Cheikh Tidiane Dieye mi leen woowee les quatre mousquetaires xaw ma ma <laughs> woowee les trois larrons de la République mais des larrons bien marinés nag à la sauce de l'injustice ñooñu rek doy nañu cocktail molotov dañu naan xale yi dañu créer cocktail molotov mais ñooñu ñooy cocktail molotov à à trois parce que explosion bi Sénégal nekk di dundu ñett ñi ñoom ñoo ko waral ci seen ay doxalin kii ci justice bi nga xam ni daf ko jël di ko bind ak bindee nu mu ko neexee euh, kii ci ñi nga xam ni xamul lan mooy rôle FDS ba tey mu dugal leen ci loo xam ne mësuñu cee dugg dans l'histoire politique du Sénégal ñëpp dañu mës a respecter suñu force de défense et de sécurité mais kii itam ci ay allégations yoo xam ne jàpp na ni muy ministre de l' mën naa wax ba dippi wax ay ay wax yi wax yi dul dëgg wëlbati ko Sénégal parce que xale yi euh, su ma nee xale ñun ñëpp ay xale lañu parce que dañoo bokk ci génération boo xam ne ñu dañ naan maturité ñu naan immaturité ñu naan responsabilité euh, réew mi dañu ko soppi parce que ñi nga xam ne ñoo jiite te war a wax dëgg ñoom ñoo deful seen réew te xale yi nag ay la yeween mag ñee leen jur xale yi mag ñi ñoo leen jur mag ñee leen meññ mag ñee leen yilif waaye bu ay mag sañee taxaw ci penc di wax wax yoo xam ne ay xale yu tuuti mën nañ koo teggi ba ay kàddu yoo xam ne sax dem nañ ba may mafia kacci kacci ndax loolu yëpp lu ko indi mooy ay mag yu dul wax dëgg ñàkk wax dëgg weesuwul euh, nga projeté sa fi vidéo teg ko génne ci say élément ay sénégalais yu filmer vidéo boobu moo am organe bu tudd France 24 nga xam ni Sénégal taxu ko jóg dañu am benn émission spéciale boo xam ni fépp vidéo nekk ci àdduna bi ñoom dañ koy càmbar wax authenticité authenticité wala ou pas de la vidéo am na vidéo yoo xamante ne day yàgg nit ñi jël ko di ko utiliser ci ay contextes yu nouveau ñoom loolu mooy seen rubrique ñu won la ni vidéo boobu gis nañ ci loo xam ne la nga wax amul indi la complément de la vidéo amoo looy wax lu dul attention vidéo yooyu ay montage la ci pénc mi ci péncum Ndakaar ci péncum Sénégal ay magum jëm yor des preuves de li nga wax amul yow nga taxaw indi leneen jël ko imputé ko aux réseaux sociaux nan la réew mi di baaxee nan la réew mi di baaxee bu nga xamante ne ñi ñu war a jiite nekk sunu état ñoom ñoo nekk un état bandit un état voyou un état boo xam ne dafa am ay milices un état boo xamante ne ministre de l'intérieur dafay taxaw naan euh, dañuy def ordre public parce que dafa am ñoo xam ne dañuy toog ba mu neex leen song kër jàmbur gis ngeen fii suñu ay rang suñu suñu suñu tante suñu suñu mag suñu suñu mbokk muy ay dëmbooj këram dañ ko songu taal ay otoom permanence su euh, euh, président Gakou ñu taal ko fii ñu song ko kan moo njëkku song yi ñoom daal bu leen neexee ñu orienté débat bi jël violence bu ko xëpp opposition mais on ne parle pas quand c'est l'opposition qui subit les les violences fan la violence yooyu jóg li neen laaj du loolu li neen laaj dañ si dellu si mooy nervi yi ñu gis ñuy wàcc ci pique bu policiers yi lan la ñu fay def kan moo leen embauché lan moo tax nervi yooyu pique bi ñu gis leen ñuy dugg biir APR lan moo tax ñu gis ay nervi ñuy tiire ci suñu ay doom ba ñu dee li neen laaj dafa simple bu ñu mënul wax dëgg nañu rangé wu toog mais mënuñu taxaw di ñu wax loo xam ne du dëkk suba ba ngoon penc mi su yàqoo société bi su nasaxee ay mag yu taxaw ëllëg démb daan nañ jàpp ni nit ñi yeewuñu parce que dañ daan ñëw rek wax nit ñi kenn du xam mais léegi lu la waaye wax da nga jël sa téléphone nga tapé ko Google tontu la lu nit xamul sax Google mën na la koo wax c'est leer numérique loolu nag da leen a xaw a dépassé ils ont un réel problème avec les réseaux sociaux parce que am na ko fi wax léegi dañoo museler la presse ñu ngi leen di mastaw ñu ngi leen di wu di leen jaajëfal li tax ñu leen di jaajëfal mooy ñu bare ci yéen am na vidéo yuy génn yéen a ko filmer en réalité malgré que bàyyi ñu leen ñu di ngeen def seen liggéey da ngeen ko amul fu ngeen ko diffuser parce que bu ngeen ko diffuser ci télé ñu couper signal bu ngeen ko diffuser si yenn plateforme yi sax seen ay patron dañ leen di menacer donc réseaux sociaux moo fi nekk parce que là les gens peuvent ouvrir des comptes diffuser les vidéos du France quatre moo ñëw filmer vidéo yi déedéet ay sénégalais yoo xam ne kenn ku nekk ak sa partition ci combat bi ñii seen ay balcon lañ nekk ñii seen ay terrasse ñii seen ay fenêtre ñu gis ay jigéen ñoo xam ne dañu làqatu di di filmer ku nekk da nga def sa rôle ci combat bi ñooñu ñoom ñoo filmer ñu jël ko teg ko maintenant film bi moom bu ko tegu toom xëy na bu ko neexee mu ne amut mais moom mooy xool la ka ca neex mu daggu ko moo tax ñu ne fen du bijaaw te booy wax waxal dëgg rek parce que dëgg la nit mënul changer mais boo waxee contre vérité problème bi mooy pour nga mun ko ñëw réparer suba buñ la laajee doo mën a wax li nga waxoon démb parce que da am problème pour fàttaliku li nga waxoon démb loolu moo dal gouvernement bi fi nekk wax na itam ministre de la de l'intérieur wax na ci affaire légalité nee na blocus bi am kër Ousmane Sonko ba ñu woo sénégalais yi ñu ko dëcce waxee léegi pour ñu dem euh, euh, libérer ko mu ne euh, ordre public boo koy def da ngay appuyer wu ci quatre mbir moom quatre mbir yi nee na benn bi légalité la benn bi nee na nécessité la benn bi nee na la beneen bi nee na réversibilité la ñeent yooyu yëpp xam ngeen ni amul benn bu ci am ndax légalité boo amee seen seen technique ci këram génneel décision de justice bu la ko may muy légalité amuloo ko nécessité quand un état di dit fort force reste à la loi la situation maîtrisée wax ne dafa nekk nécessité mu bloquer un adversaire politique y a problème nañ seetaat wax boobu lan moo ci nekk dëgg lu ci dañu ne parce que moom bu jógee di def ay déplacement day am ay trouble loolu moo waral ñu war ko apposer cette violence la est-ce que loolu war nañ ci mën a taxaw nangu ñun nag ay sénégalaises lañu ay jigéen lañu kenn ci ñun ku nekk yaa ngi waajal sa bopp di waajal tabaski tabaski nekkatul sax fête religieuse tabaski fête culturelle la ñi dañuy euh, nàmm seen paaka yi gën a ñaw ñuy waajal seeni xar ñi ko amul lijjanti ba am ko ñenn ñi ñawlu seen yére mais la base de cette fête c'est quoi mooy la famille mooy nit ñi saafonte ku ne jóg dem seeti sa moroom ku ne jóg dem seeti sa mbokk ñu baalonte ak ñu jël koo xam ni maire de ville la maire de Ziguinchor moom ay responsabilité Ziguinchor heure bii waa Ziguinchor di ko xaar pour mu yëkkati budget mairie bi xool ay aide fay famille yu mu war a jàppale ay nit ñi mu war a seet ay nit ñoo xamante ne dañ ko jox seen kàddu te état bi nangu ko léegi kooku lañu ne dañu koy xañ moom mu déplacé wu dox ci vaquer à ses léegi ñuy laaj jàmm ji sénégalais yi di woote te kenn ku nekk bëgg ko te ñun ñii ñu jiitu leen ci parce que foog naa ni jàmm kenn ku ne ñaanal ko sa moroom parce que bu ko amee nga am ko bu Sénégal nekkee ci jàmm ñun ñëpp ñooy nekk ci jàmm mais bu Sénégal nekkul ci jàmm kenn du nekk ci jàmm kenn ku nekk rek dama lay demander nga jël sa bopp nga mettre ko à la place de la famille de Ousmane Sonko.